lil musta Amen. jëm gi jëm fas la waaye dana am na sax euh, moo gën a gaaw lépp Yeah. Gracias. Bueno. ki loolu kon ñu nekk ci seen i wax war na ci bind ñoom ñëpp xam ne